di sant rek di sant trop wax dëgg yàlla am mbégte parce que tamit jiite yombul waaw parce que imam ba jital jiital sax gënul xam gënul ëppul xam-xam ñëpp dañ ko doyloo rek jiital ko te nag wax dëgg yàlla mbir mi ma bok ma bok ma bok ko ak samay nawle parce que tamit jiite say nawle jiite say morom say say adver ñoo xam ay adversaire ngeen yombul man kon mbégte bi mu ci am mooy wax dëgg yàlla bi ma jëlee sama téléphone woo ku ci nekk ñu gisee ñi teew ñëpp ñëpp Boy Niang Modou loo <coughs> parti Reug Reug Yaxya suñu suñu mag wax dëgg yàlla yombul ba jëlee suma téléphone woo ku nekk waxtaanee ko ci néeg ba ñoŋal ko ba mu yegg si fii yombul woon waaye lii rek laa ci bëggoon ah mm-hmm. pour tey ñun mbër on est des vrais patriotes social kenn daxuñu ko ci Sénégal bi coronavirus bi mbër ji gën a métti la parce que mbër mbër rek mooy dem ñaani pour jox pour jox ay nit waaye lii dafa nekk quelque chose boo xam ne dafa c'est symbolique lii ma dafa mënul ñàkk parce que nag ñu nekk Sénégal façon takkusaan bu ne bu ñu amee combat dëkk bi na tekk doo dégg dara mhm. kon boog lii ci askan wi la jëm am ci contentement si suñu ñaari ministre yi. Mhm. seen teewaay bi ñu ñëwee sànq di jël ay parole ci kaw di waxtaan ci kaw ñu ne le ministre Diouf Sarr dafa nar a absenté ñun ñëpp suñu yaram yi dafa xaw a dee parce que parce que li tax fooy <coughs> dañ koy séen ci télé bi soo ko gisoon xam ni kilo yi wàcc na ndax sonn parce que nag mm. xam nañ ko bien avant coronavirus bi di dugg Sénégal. du nelaw goudi am yërmande ci mom lol en tant que patriote patriote gis ko ni mu sonné nga xamni ñun ñep ñoo dañoo wara a ci xex bi andal nak suñu ministre du sport tay mu magal ñu tay, bu ko neexon na ma nga la tok waye dafa xamni lamba làmba ay tay ay mbeur ñoy indi mu ñew jëmmal téwayam am lu mu def ci bés bi te mbir mi combat la te tamit mu ñëw taxaw fi suñu papa Bécaye mbay dañ ko wooyee def na asalaamaaleykum mhm. ngeen xam ne tey làmb moo fi nekk façon sportive bu nekk ñëw na fi waaye tey li fi ñëw ci presse tey ñu fi soog ñëw mhm. kon saw veut dire que tey dafay wane ni mbër yi waroon nañ war nañ gën a xamaat suñu bopp xam ñun lan la ñuy tekk ci dëkk bi xam ban impact lañ fi am ci pour pour bu bu yu mel ni amati amatee buñ ci xaar kenn xam ne làmb moo ci gañe

deux jours je vais ñi un pour rek